saraax la ñuy def ci xew xew làmb tey fekk fa Bombardier ma yëkkati ay kàddoom ñagasal ko ba mu ñagas sànni ko waa CNG moom la B52 de Mbour la mu ne mooy CNG dafa soxla ay nit yu bees tàq ay bopp yu bees tàq yu remplacé ña fa nekk président Alioune Sarr ak dañoo war a dem jot na doy na sëkk rax ca dooli moom Bombardier ne Alioune Sarr li war a tax mu dem dafa bari mën naa leen ci limal ñaar rek pour ngeen xam ne demam jot na sëkk dafa war a dem mooy ñamu jiite ñu nekk ci làmb du leen déglu benn yoon faale wu leen compté wu leen yoonam nekkul ci ñoom beneen ba mooy sama combat ak Rocky Balboa da koo bañ te waxul li tax mu bañ ko

taxawee ñëpp dañoo jàppoon ne bu date ba jotee dañuy bëre mbir ma jeex ca diggante ba la jàpp Luc Nicolaï mbir ma compliqué ñii naan dana am ci ginnaaw Luc Nicolaï ñii naan tànk Luc Nicolaï génnul combat bi du am estaafu Ama Baldé di teg pression ci Luc Nicolaï naan leen sunu contrat ci at mi la yem combat bi bu weesoo at bi dootuñu ko bëre boobee la ñëw jël combat ba aj ko kenn mënu ca dara ñoom waa Parcelles ak waa Pikine a sunu làmb mooy diirub juróom-ñaari at ay béeki lay doxee li ni mel nag mu ngi ko jële ci ab accident gannaaw ba mu demee Cees seetaani làmb bay ñibbisi ci la yàlla ñëw ak dogalam diirub juróom-ñaari at mënta dox lu dul daa yori béeki waaye la mu xamle ci sunu làmb mooy maa ngi sant yàlla bu baax ndax maa ngi dox bu baax dogal képp la wonte yàlla jàmbalay natu loolee bokk na ci li tax ma déconnecté làmb ji xamatuma ci dara fa ñuy jeexale mooy ca Pape Thiam 1 say naataangoo ci làmb mu ne Petit Niang Thielé Albarka Kayré ak Fourière mbër yi laa soxla ñoom laay rëbb ci ma ci jox ma tuccu la ba nga nooy jërëjëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah